asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki ñuy topp ci biir ak ci bitim réew yépp noo ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziar di leen nuyoo ci tuuba Euh, fii nga xamante ni bii mooy résidence Cheikhul Khadim fii nga xam ni fi la Cheikh Mouhamadou Mountakha du dundale weeru màgg wi muy weeru koor mboolem njabootug Serigne Touba Cheikhul Khadim ak mboolem cheikh yi rawatina liggéey bu tedd bi nga xamante ni bii xam ngeen ne Serigne Touba Cheikhul Khadim moo ko santoon maam Cheikh Ibrahima Fall ci njaarim muy togg ay ndogu bi nga xam ni maam Cheikh Ibrahima Fall wéyal na ndigal loolu ba jóge fi. mboolem ñi ko fi mos a wuutu ñëpp daal di jëfandikoo ndigal loolu la ko tàmbalee ci Cheikh Mourou Moussa Fall ba ci Cheikh Abdou Sakkoor ci njaboot gi waaye tàmbalee itam ci Serigne Modou Aminta Fall mi ko fi njëkk a wutu ci sët ba ci tey ji sëriñ Cheikh jëmm muy wéyal liggéey boobu waaye mboolem buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall yi li ko tàmbalee ci fukki buntu kër ak lu topp wala ñu bëri ci njaboot gi itam di jëfandikoo ndigal loolu waaye ñëpp rek nag aju ci ni nga xamante ni bi noonu la ko maam Cheikh Ibrahima Fall di defee te mooy ki ko fi nekkal te di Serigne Cheikh jëmm mooy ngoon nga jot togg ndog yi indil ko Cheikh Mahamadou Muntaha waaye Serigne bi itam jël liggéey bu tedd boobu ci weeru koor dénk ko ay jëwrin tàmbale ko ci Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdou Latif di ñaan sunu borom mu dolli ko fa yàggal bu baax waaye ànd koog nag mboolem murid yi mbokkal liggéey bi fii ci kër Cheikh Mouhamadou Mountakha ku ci mel ne jëwrin Serigne Lampo Ndiaye Serigne Mamour Mbacke ak ñi nga xamante ne bii ñoom la bokkal liggéey bi saa bu Baye Fall ñëwee ngoon gu jot ñu nangu ndog yi waaye tamit liggéeyal ko sëriñ Muntaxa liggéey bu tedd bi nga xam ni moom la koy liggéey te loolu sëriñ bi dina ci indi ay leeral tey nag ñu ñëwoon ngir fas yéene waxtaan ak moom comme ren gis nañ ne ak coppi am na ci ndax li xew te wër àdduna bépp te muy feebar bi nga xam ni ñu ngi koy dégg ci bitim réew ba di ko dégg fii ci sunum réew waaye di ko dégg itam fii ci sunuy gox sëriñ bi nag joxe ci ndigal loo xamante ne bii mooy moytu yu bëree bëri yi nga xam ne daf koy indi yooyu yëpp itam sëriñ bi dinañu ci indil ay leeral ci ren ndigal loolu naka la ñëwee ci Baay Faal yi ak itam nan la ko Baye Fall yi jëfandikoo ngoon ko jot ñu ñëw fii ci kër Serigne Touba ngir indi fi ndog yi ñu àndandoo déglu sëriñ bi ci kàddu yi nga xamante ne bi moom la ci fa seenee leeral. bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. ñu leen gërëm nga wax rek ci turu sëriñ bi ci liggéey bu rëy bu tedd bi nga xam ne wax nga ko léegi mooy Cheikh Ibrahima Fall daan ko seq liggéeyal Serigne Touba. dama fi jógee ba léegi njabootam gi di ko dundal ko fi mas Cheikh Ibra yaa ngi koy dundalee nag ñu ko daan dundale ba may si suñ saa jëmm ak yàkkali gi mu gën a yàkkali nga xam ne këri Cheikh Ibra yëpp ñu ngi liggéey liggéey boobu muy togg ndogu ak kër yi nga xam ne ña nga baaxoon nañ koo togg ñëpp ñu koy togg am na kër Cheikh Mbabou Guèye kër Cheikh Mbabou Guèye Sëñ Adama Gueye ak kër yi bari léegi ñu ngi ci ndogu yi waaye loolu lépp yokk liggéeyu Serigne Touba la rek liggéeyu Serigne Touba moo amul tànk ginnaaw tànk kanam la lépp day gën di yokk di gën di yàqale ko liggéey bi nag ni mu doxee ba ci loxoy sax Maodo Mountakha da cee gisoon gis-gis bu rëy ak fas-fas bu rëy teel la noo wax ne na ngeen taxaw ndogu yi. nay seen yitte ngeen ko saytu ba mu dox na mu war a doxee fa mu war a ag mu àgg fa loolu muy daaw jéeg daaw jéeg it nañ ko àndee woon ak jawriñ yi toog mën na gën daaw jéeg itam noonu ko mooy saytul ko ba joxe ko nam gën a rafete waaye ñu yokkal ko ko dolli woon nañ barab yoo xam ne ndaw yi daaw fa àgg te àgg na fa ba ñu bari bi ñu doon sant foofu la ñu tàmbalee daawoon na ci daawoon na ci daawu fi excité mi ngi fi excité donc ci barkeel di ko sant ci amu taxa ba daaw mu jaaraat ci yoon wa mu jaaraate ci yoon wa itam mu ko defoon daaw jéeg rek ñu yàkkale ko bu baax ndax daaw ndaw yi nga xam moom la si ñam di xadi di andi ajuma kële woon nañ ko defe naa kër yu mag yëpp xéwal gaa gën a fa këri Mbàkke yeeg këri Mbusoobe yeeg këri Seex Sëriñ Tuubaa yëpp ak këri kilifa yëpp loolu lépp yàkkalil Sëriñ Muntaxa ak de jëm ko sàmmale ab liggéeyam ba mën a yaatu mën a ñoŋ mën a barkeel rek mun moo ci sunu wàll damay wax ne Baay Faal ba am pasteefam amul ginaaram ci àll ba jëli ko fa andi ci kër sëriñ ba sëriñ bi dajale ginaar gi ba mat ndab mu togg ko ñu dajale ndab yi ba yanu ko andi sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa joxe loonu ko kon noonu itam war nañoo jéemaam yitte ak passeef ba joxe yéen ba sell ba fa mën a àgg ma àgg fa bu nu amul luñ ca dolli it la jox doon ko joxe ba mu nam gën a rafet loolu mooy dox mu ci njëkk lal taay ren nag muy at moo xam ne suñ borom moo andi li xew muy wér jàngoro ji ñu ñu dégg fépp jàngoro ji ñëwee nag ndax dangaa laaj biir laaj loo xam ne day ñaari mbir muy doxin wi ngir jàngoro ji ak ndogu yi doxin wi ngir jàngoro ji nag bi kor gi ñëwagut it sëriñ Muntaxa daf cee waxoon ñaari baat yoo xam ne nee naa ba dëgg na ci ñaari baat yoo rek lañu sukkandiku di ci dund mooy nañ jaamu yàlla te wattandiku jaamu yàlla gi suñu diggee suñu borom moom sëñ bi ma waxoon diini ji moom dana ko taxawu ba fas ne yéene du àgg suuf dana ko taxawu ba fas ne yéene danañ ko dundal loolu moo taxoon mu wax ne tëj jàkke yeeg jumaa yi ràpp moom du mën a am ndax du ko seetaan lu mën a xew dana taxaw diine ba ñu ubbi jàkke yi ubbi jumaa yi ñu di ci jàmm waaye mu ne woon nag nañuy jaamu yàlla tey wattandiku kon mu des wattandiku ki wattandiku nag moo ajoo ak dégg ci nit ñi ci bokki taalibe yi bokki jullit yi mooy sëñ Muntaxa bu waxee ne nañ wattandiku te ñi nga xam ne ñooy saytu wàllu saayir di docteur yi di wax ne raj-rajloo gi ak booloo gi mën naa mën naa lawal jàngoro ji kon sëñ bi nañ wattandiku raj-rajloo gi ak booloo gi ndax jàngoro ji moom lu mu gën a gàtt mooy li ko gënal raj-raj loo ko ak booloo yi moo taxoon mu ne jumaa yi buñ ko tijjee itam julli juróom yi mën a fay julli waaye ajuma yi nga xam daa baaxoo fees nag na nit ñi kenn ko na jullee sa tisbaar sa kër du am nga ajuma ndax lu mat ajuma bu jullee si jumaa ji rek am nga ajuma jël bu matee xasee mat fukki nit ak ñaar rek te ji jenn jumaa lu mu loo fukki nit ak ñaar nga fay liggéey jamono Tuubaa yi bëgg dem lañ may wax ne ñu fi liggéey ñëpp mën nañ téeméer ba téeméer ñaar fukk kon buñ ko wàññee ba juróom fukk mbaa juróom benn fukk dafa jullee kon wàññi ko na sëñ bëgg def jumaa yëpp di ko def wàññi mbooloo yi nga xam ne dañuy julli ci àjjuma léeg-léeg nga dégg ko la na ko sëriñ bëgg defee nga dégg ko la ne man dama ko mënta yemale moo tax ma far tëj waaye sëñ bi daal bu sañoon kenn du tëj waaye bu sañoon danañ wax nit ñi itam ñu jullee seeni kër ajuma ji te xam ne ñi war a jullee jàkka ji bu ñu jullee ajuma teew ba ajuma ji ak ñëpp am nañ ko ndax fardu kifaaya la bu ko ñuy defee rek wàcc lañu loolu la suñ ko waxoon kon raj lañ googu nag fépp lañ ko wax di bàyyi xel ak wattandiku gi bu ko defee mbooloo yi itam li nga xam ne mooy sàmm nit ñi ñu ñëpp di ko bàyyi xel mooy bokk na ci masque yi ndax ginnaaw kenn ku nekk lii sa yéene di sa ñaan mooy lii jeex jàmm lépp luñ leen di mën na ko fee jëlee kenn ku ne la nga ca man bu ko xeeb na nga ko def rek ndax bu kenn ku ne jéemee sàmm boppam bu ñëpp ñogee lépp jeex kon kenn ku ne nag jéem lañ koo digal ne ko bu ko defee ma koy musal na koy jéem a def bokkoon na ci nag masque yi ak raxasoo kotol bi ak mu def ci say loxo sel bi dañ koy bàyyi xel bu baax ñaan ñu nekk buñ amee luñ mënta ñàkk wax nu bàyyi xel ci distance ba ak masque te wàccali ko raj raj loxo loolu moo jàll si ci ndogu yi ndogu bi koor gi jógee jubee te teñ bañ raj raj loxo bi sëñ bi dama yebaloon ci docteur ci Aliou Guèye Ndiaye dama nga waxtaan moom ndax ndogu yi faaw ñu am ay kayit mooy tax raj raj loo du am dama ne ko li tax raj ndogu yi dañ ko daan wër di ko dajale ji wala fu ne ab Baay Faal jóge fa andi addiyam kër sëñ bi bu ñëwee toog di togg ndogu li tax loolu du am nag mooy dañuy defar kayit yoo xam ne kilifa gone dana am kayit yoo xam ne fu mu bëgg a dem fu ko ne addiyaa ngi fi mu dem kii oto bi dem jëli ko boobaa kooku déplacé wu kenn ku nekk amaat kayit yoo xam ne la nga togg dang ko jotee andi ko loolu moo tax ñu séddale kayit yi jox sëñ Isaa Jëmb jox sëñ Amdi Xadi ak kër Isaa Ibra yëpp kër sëñ Mor Talla kër sëñ Aliou Fall sëñ kër sëñ Ablaye Fall moo sëñ Isaa Jëmb ñu bokk waaye sëñ Abdou Sakor Daarul Xafoor sëñ Kàddu Fall ak sëñ waa kër sëñ Babou Guèye moom sëñ ñooy togg ñoom ñoo togg ren oto yi ñoo te la ñu andi ndogu yi bu dee oto ndogu yoo xam ne ñetti oto ko mën a andi ñetti oto koy andi bu dee loo xam ne ñaara ko mën a andi ñaara koy andi bu dee loo xam ne benn koy andi benn koy ko oto bi andee ba noppi itam ñaara nit la ñuy bàyyi ci kaw oto ba ñu dem yóbbu ndab yi fañ ko daan yóbbu ndax buñ ko masaan yenu ba andi ko bool bu ne xam nañ fa mu jëm ba Baay Faal moo yenu bool bu yóbbu fa jëm léegi nag ci oto bi lañ koy bàyyi oto bi war yóbbu ko barab bu ne oto bi yóbbu ndogal la fa jëm ba tax na fa tabaarakallaa fii ñu koy andee fi ñu koy yóbboo raj raj loo amatu ndax damay wax ne ndogalu ñett rek ko seq andi ko ak togg ko ak ko ak nu ko defee noonu door ko tasaare ji lu ci nekk nag bàyyi ci xel bàyyi ci yitte ba nga xam ne raj raj loo amatu ci lañ ci bëggoon rek lañ ci dox ndax sëñ bi itam day wax ne ginnaaw li mu bëggoon ci diine ji état bi may nañ ko kon état bi itam li mu santaane ci wattane ko raj la joogi nañ fexe ba may ko te raj wattane ko raj la joogi mooy jur jàmm jàmmi njaboot gi te moom lu may jàmm njaboot gi jàmm rek mooy yitteem ndax moo war a sàmm ñëpp kon ñëpp mu mucc rek mooy yitteem kon nag loolu dafa ci tënk mooy doxin wi fekkee amul leneen lu ngeen ci laaj. xam naa li ma bëggoon a xam rek mooy am na lu daan faral di jóge ci kër sëñ Cheikh Jëmb di dem Njaarim loolu itam maanaam lan nan lañ koy yóbboo comme gis nañ ne yoon wi léeg-léeg dafay am ay gàllankoor ci dem gi. waaw loolu itam ña ngi koy yóbbu nañ ko daan yóbboo waaye li soppi lii rek moo soppi loola ndax bi may demee di wuti kayit ci àll yi wax naa ko ne ko am na ñaari oto yoo xam baaxu ñu dem Njaarim camion bi sëf ñam yi ak oto sëñ yóbbu loolu moo taxoon kayit yi itam ñu ne kon buñ ko andee nañ def ñam yi ci biir oto bi te mbooloo mi daan yéeg ci oto bi fees dell buñ demee kenn ko ne yanoon daf jëmi fi barab loolu kon ñu am ci soppandiku ba jamono soppi ko waat waaye ñi ngi koy yóbbu dafa naa yoon wi itam ñu fay fekk ci kaw yoon wi léeg-léeg ñu am ak ñoom waxtaan laaj leen am luñ jëloon waaye bu ñu leen leeralee it bàyyi nañu bàyyi leen wala bu ci seen kilifa war a jut seen i kuréel fa jot ñu bàyyi leen ndax barke démb ci ndulo xëy na téye woon nañ leen ndax booba mbooloo mi ci kaw oto bi naa bëri waaye ba ñu waxtaanee am na ñu déggoo wàññi nañ mbooloo ma nañ mbooloo ma ba mu jaaru ñu bàyyi itam muy muy bëkk démb bu ci ne police téye na leen xëy na am na lu doon laa ci ñoom waaye bu téye ba yàggee it ba ñu waxtaan ak ñoom bàyyi nañ leen wala boo waxtaan nañu ak seen kilifa ñu bàyyi leen waaye ñu xam ne ma la daan dem njaarim daal ma nga fee dem nam fa daan demee demin rek moo soppi ko ci gën a ma ànd ak li jam fi jamono toll daal am na it ci Baye Fall yi ñu daan toggee njaarim di indi fi ñooñu it mbaa amuñu benn jafe-jafe ci toggin toggee gi njaarim di indi fii wala da sëriñ da ko soppil waaw loolu moom sëñ am di xadis rek la sëñ am di xadis moo daan toggee njaarim di ko indi fii waaye nag lim lim moom par ajjuma daan togg waaye ajjuma ji nag togg ko daan yaatoo yaatu rëy rëy ba nga xam ne ba lii demee te sëñ bi yónni ma fa wax ne nañ xalaat ci dajeeg mbooloo mi ñoom ñoo daal xalaat kon ne faaw ñu am sappat sappat googu nag mooy kon far ko toggee Tuuba te buñ ko toobee toggee Tuuba itam ñu wàññi mbooloo ma ba mbooloo mu yë mu ndaw nekk fa mbooloo mu ndaw mi nag lañ mën a togg ñu andi ko waaye lañ daan togg moom mbooloo mu néew mënu koo togg dañoo wax ay junni ginaar dañoo wax ay juróom fukki nag dañoo nangam ñu togg fi ay ñaar téeméeri booli ñett téeméeri booli yoo xam ne duubal booli yu mag lay doon loolu mën mu ne su ko def ci mbooloo mu néew moo tax soppi kooku moo ci am defee ki Tuuba ak wàññi mbooloo mi ba mbooloo mi fa mën a nekk lañ mën a togg rek ñu togg ko ñu ko te xam nañ dana mat jëf ndax àgguñ ci àjjuma incha allah. fan yi dañuy gis ci ñu bari ñuy wax ne lu ëpp ci ndog yi sëriñ bi da koy jox ñiñ quarantaine ndax loolu bëgg nañoo sëñ bi indi ci ay leeral. am na bëkk démb la sëñ bi wax la sëñ bi wax ne ma dama amoon yéen yi kenn ku nekk fa nga nekk ma fekk la yor la fa amoon yéen yi ñu wér a laal ñëpp ma yor leen seen kër xëy na loolu nag bu fekkee mënewuñ ko noonu waxtaan na ma ak yor faj mi ba ñoom liñ sàkku mooy kër yiñ quarantaine ñu dafa yóbbu ndox waaye docteur yi ñoom nee nañ ak ñane ci biir hôpital bi ñoo leen di dundal këriñ quarantaine barki démb bu suñ waxee man na ñeenti fan fanweeri ndab la ma laajoon démb bu sëñ bi nee nañ ci teg juróom muy fanweer juróom tey jii tegaat nañ ci juróom-ñaar muy ñeent fukk ñaar yëpp tibb nañ ko jox nañ ko waa région médicale bi waa district bi ñoo koy jël seen ambulance ñoo koy yóbbu ci kër gi wax nañ ne waa kër yi ña sant loolu noonu la demee dañoo yëg ne itam ne dañoo dégg ñu wax ne sëriñ bi dafa waxoon dafa santaan sant Baay Faal yi euh, ñu ñu ñu yokk ñu yokk lim bi ndax loolu moom euh, wér na wala wérul waaw bu dee li moom daf yi wér na ndax li tax wér na mooy man mii maa leen ko wax ndax sëñ bi daay yokkulu li muy def lu sëñ bu yokkuloo li muy def lu kon xam nañ ne yow bëgg nañ yokk li ñuy def ndax ginnaaw quarantaine yi bokkuñ ci woon kenn ndab yi daan ñëw lu ne amoon na fu mu jëm mu jékki-jékki santaane ñeent fukki def ñeent fukki def nañ ko fu ñu ko mën a jëlee fu dul yokk rek yokk lañ daan waaye li ci gën a neex mooy digal li niñ ko déggee niñ ko jëfee niñ ko rafetale muy ci kër sëñ Cheikh Jëmb muy ci kër sëñ Aliou Fall muy ci kër sëñ Mortala ñoom ñëpp yokk nañ liñ doon andi ba tax ni ko sëñ bëgg mi ngi nii amee loolu mooy la ci am lan la señ bi xam naa dénk rek mu njaboot gi faral di ñëw ak ñi ñuy fekk ci biti gis nañ ne lee rek dajaloo bi ci biti gi it sëñ bi du ko ci bëgg soo ko sëñ bi ñàkkul kàddu yu mu leen dénk rek ngir ñu gën a sàmmonteeg dajaloo bi ci biti léeg-léeg ma gis ko dugg si sëñ bi ne ko dañuy bañ taw hmm. ndool gi ci xeex jàppante bi wala bëri bi wala xeex bi ci man lay tàmbale gannaaw man maa war a jiite mbooloo mi maa fexe moom li sëñ bi bëgg ñu def ko te wax naa la ñaari baati sëñ bi njëkkee ba léegi mooy dox jaamu yàlla te wattandiku joxe gi ndogali jaamu yàlla la ci noonu wattandiku mooy bañ a dajaloo loolu moo tax nag may taxaw ci nit ñi bañ a dajaloo mboolem ko dugg si naa ne toogal ci barab sàngam ba li nga war a jot ci xéewal gi fekk la fa te ma leen waxee ñu ngi koy def ci biti ak góor na ci ñàkk matu doomu aadama rek xëy na bëgg xéewal yi tax na ñu bëggoon tàmbalee raj raj la ñu mel ñu benn ñu bëgg xëccoo waaye dafa mujjoon nag ma ne leen ndigal lii ñoo sëñ bi digal nag moom faaw dañ koy def def ko ci rafet na daa gën mu def ko ci ñaaw ñaaw gi mooy lan ñu ne la demal toog nee te dal toogoo ba te dal ba police fekk la ko te kuñ ne demal toog fee ba dal li la fara fekk dana fekk waxoon naa ci njaal biin gi ne daari ba bàyyi faalu ndaw ko ndaa ba jógee fële ko ginaaram béséere ñu dajal ko sa jëmb ñu toog ko andi ma séddale ko du ma fas yéene ñoo ñu gën ma am passé wala ñu gën maa gore séddale gi moom bu ci desee dinaa ko def kon fu waaye nekk la war a agsi ci yow dana agsi ci yow kon nag kuñ ne dalal ba li nga am nga am ko da ngay dal rek ba li am nga am ko ñu teg la ci yoon ku jaarul ci yoon nag bu la ci leneen fekkee nga xam ne yaa sa bopp loolu rek la. yi sëñ ñaan képp lay na ñaan sëñ Muntaxa yàgg mbas mi jóge fi na ñaan ñëpp am xéwal ñëpp am jàmm ba liggéey bi saa suñ xëyee mu yokk. sëñ Mountakha bokk na ci lim daan soññee sa buñ xëyee li nu weesu nan ko xeeb ci li nu jëm kon saa xëyee nan weesu li nan xeeb li nu weesu ci yi muy ci lu mën a muy ci suñ jëf yëpp mag ñi dégg naa mag ñoo xam ne dañ daan buñ xëyee daan nañ wax ne dañ daan laxasaay taxaw donc yëpp laxasaay ñu taxaw mu ne gaa ñi an faso ñu ne an ko faso mu ne laaw la ma faso di ko ñu ne laaw la ma faso di kon nan ko faso rek nan faso jëm ci kanam man wees sëñ benn yóbbu dem ci kanam yàlla na ci dajeeg tawfeex sëriñ jërëjëf eh, Mbacke loolu mooy kàddu yi nga xam ne ñu ngi ko doon taataan fii ci Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdou Latif di jëwriñu Serigne bi waaye yoral ko liggéey bi fii eh, ci biir kër gi lu jëm ci ndog yi itam ak mboolem liggéey yi nga xamante ne bii Baye Fall ñu indi ba xam ngeen ne Mbalem Touba lépp loo xam ne rek njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi koy liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Khadim Serigne bi boole ñoog Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne waaye tamit mu ànd ak jëwriñ yu tedd yi nga xam ne ñoom la bokk liggéey bi tey nag ñu ñëwoon ngir sàkku ay leeral xam ngeen ne ci ndog yi nga xam ne Baye Fall yi ñu ngi koy indi waaye tamit ak jamono ji fi mu nekk fi mu toll ci tawat si ñuy dégg yan coppi moo ci am waaye dégg ngeen leeral yu am solo yi nga xam ne sëriñ bi def na ko ci noo ngi sant bu baax tey ñaan yàlla Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi lool te wér ñaan liggéey sëñ Tuubaa bi lépp mu yeggale ko ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall Babu Mouridina kon noo ngi sant bu baax tey gërëm tey ñaan yàlla suñu borom defal ñu tawfeex defal ñu barkeb sëriñ bi lépp lu ñu wut ñu am ko ci barkeb liggéey bu tedd bi ci weeru koor yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh